salaamaaleykum mbokk téléspectateur chaîne mi ñuy seetaan télé bi nga xamante ni mooy cent cent pour cent digital la télé sunu télé askan bi ñuy waat tey seen beneen numéro découverte ah, ma ànd ceeg ndaanaan bu mag ah, foofu laay jaaree nag di nuyu suñu kilifa diine yi nuyu xalifa général Tidiane muy Serigne Mbaye Sy Mansour nuyu xalifa général mu muy Serigne. moo Mountakha Mbacké ah di leen ñaanal gudd fan ak wér yàlla bàyyi leen fii ah, di nuyu président mi nga xamante ni moom moo jiite réew mi di ñaanal waaye dawlu yi yàlla na yàlla yërëm leen ñi nekk ci prison yi yàlla génne leen fa ñi tawat nekk ci kër yeeg ci hôpital yi yàlla na yàlla yëkkati leen yàlla faj aajo yëpp nee ah leen xibaar yu baax nga fay fekk lu wér te wóor tey nag damaa dalal ndaanaan boo xamante ni nii kenn la ci artiste su Sénégal depuis mu nekk ci milieu bi ñu gis ko ci écran yi ba léegi benn image bu baax bu mu wane woon ci la ko askan wi xamee ba jusqu'à présent du ma leen wax kan la dañuy ànd ñu daal di koy découvrir door grand nuyu naa la. maa ngi am mbégte dalal la fii yow fii sax sa kër la <laughs> donc am naa plaisir trop di la siyaar di la nuyu euh, di jiital aussi ci nuyoo bi ni nga ko defee rek kilifa diine ak aada yi di nuyu bu baax ñuy seetaan suñu ay mbokk mais aussi di nuyu internet yi di nuyu également sama ñaari doom yu nekk si yéen mhm. euh, soxna Bateur di nuyu aussi Moustapha Thiam xit mhm. bon maa ngi nuyu yusu maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ci télé bi mhm. di leen siyaar bu baax. ah muy Ibrahima Mbaye Sopé di ku baax koo xamante ni benn couleur la ko ñëpp xamee mooy li ma ko waxee woon sànq ma bëgg a xam euh, Ibrahima Mbaye Sopé mooy kan ci milliard. Ibrahima daal xam naa ni mbokkum talibé la. Euh, juddoo Tëngéej magge fi dama dan faral di wax ni lu tuuti la lu doye di luy tiit di la te xamul dara rek loolu moom façon su boo ci xoolee Ibrahima di nga ko ci gis loolu mooy tënk bi bu ma baree wax ba bari wax wax li ci man leneen lu ma wax lu nekk sagu lay doon wala des fois dama seetlu ni bu may wax si man damay muy bëgg trop sama bopp wax loo xamante ni du loolu wala ma soxor trop ci sama bopp ba wax loo xamanteni ni mën na ma gaañ mais xam naa ni daal xam naa ni Ibrahima taalibe la ah taalibe la ku bëgg Serigne Touba taalibe la ku bëgg Cheikh Cheikh Sadbu parce que man sama papa xaadar la donc dafa teel a wàññeeku sama yaay juddoo Dar Salaam moom moom boole ak murit gi di waa kër Serigne Baara donc yàlla dogal aussi ma am wóolare ci tarixa yeeg yi fi am yépp këru diine yi. Ibrahim Kokula. Ibrahim a euh, commencé le théâtre Tengik, l'École école nationale des arts Il a donc créer une compagnie de femmes contre les violences faites aux femmes compagnie boobu Nak, ci carrière internationale xaw a gën a gën a ndax dañu dem Tunisie gagné le grand prix du jury international donc ñu bokkoon ci jury bi c'est un jury international. donc ñoom ñëpp ku si nekk jël ma ak sama compagnie pour ma dem ci sa festival loolu nag moo ful moment boobu li ñu doon liggéey boole yeneen détails yoo xamante ni peut-être si biir euh, dinañ ci dinañ ci gën a ñaax. ndeysaan loolu euh, mu nga dégg Ibrahima wax ko muy loo xamante ne loolu neex a dégg la te et wax day méngoog jëf macha allah Ibrahima bu jëfee. nga gis ni kii li mu wax nii rek boo ko déggee nga gis li mu jëf nga xam ni méngoo na te nit bu nekk war nga mel noonu image bi la nit ñi nawee nga fexe ba moment bu ñu la fekk rek bu dee am nga leneen mais li tax nit ki naw la ngay fexe ñuy gis loolu ci moom te loolu la fi wane macha allah euh, ma bëgg a xam Ibrahima ba xam am na yeneen activités yu dul théâtre man théâtre rek laa man théâtre kese lay def bi mu juddoo ba tey mënuma mënuma viser trou pour kër gi <laughs> kër gi liñ fiy defar soxna si moo koy defar de temps en temps sax <laughs> d'autant plus que aussi nekku fii donc maa ngi koy nuyu bu baax sama soxna jéegi ba di nuyu papa ñoom ñu ngi extérieur ñu di char bu baax di nuyu samay doom aussi euh, maanaam man théâtre rek laa mën te théâtre bi sax ba fi may wax ak yow nii dama koy jàng parce que saa su nekk ma gis ci xale yi loo xamante ni jeu d'expression la loo xam un jeu intérieur la un silence pour me séduire boo xamante ne dama naan lii est-ce que mon mën naa donc ba tey damay jàng ba tey te bu ma la waxee maa ngi commencé def théâtre en 1986 nekk xale bu ndaw di di ko def ba tey boobu ba tey amul benn bés bu ma toog te dunduma ak théâtre benn feeling boobu ba tey amul bés bu ma toog te liggéeyalu ma théâtre ba ba tey amul benn bés te théâtre liggéeyloowu ma ma teral théâtre wala théâtre teral ma ba ba tey amul bés bu ma toogee te jànguma pour lu yokk suma xam-xam ci théâtre te ba tey jii maa ngi koy jàng mais moom rek laa njort ni xaw naa ko mën mais beneen liggéey boo ma jox ak bu mu mënti doon ak lu mu rafet rafet rafet mënuma xaw ma moom rek la xam war nga ko gëm parce que silence bi nekk ci moom bëriwul ci ay artistes yu mu nekk te macha allah mi ngi ciy def loo xamante ni ñu bari ñu leen di dégg defuñ ko ci. Euh, nit ki nag euh, li li ma waxoon sànq rek mooy li nga xamante ni moom ngay wane pour nit ñi naw la fexeel ba heure bu ñu jàkkaarloo yooyu ñuy gis loolu ci moom ñu bëggoon xam ba xam Ibrahima jàng na wala déet. maa ngi njëkk a dugg école Camp Long 1 bi nekk fii à Rufisque après sixième ma dem euh, CMD pionnier du syndicalisme. pionnier nak dafa nek sama école xol aussi école bu ma marqué trop trop parce que bi may def 6e la commencé def théâtre donc euh, ma jógee foofu dem lycée Abdoulaye Sadji foofu la nek ba terminal je pense après ma ma dem école nationale des arts donc école nationale des arts nak bon voilà bi fay dem fekk na as tout ci li ma xam ci ci ci walu n'jang donc xawna ma aider un tout petit peu rax ci dolli aussi li ma gën a aidé man je pense ci sama njàng bi may def sixième ba terminal mooy après dama intégré benn troupe bu tudd atelier du théâtre expérimental de Rufisque Mame Birame Diouf jiite ko ma dem fa te moom il fait pas du théâtre ni comme ça moom théâtre dëggantaan lay def boo gisee day jël ay livres yu am solo di ko adapté comme ay l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane ay l'étrange de de Wangrin ay le prophète sans confession Ibrahim Sall en fait il y a la militante du y a ay pièces yoo xamante ni dafay yokk sa xam-xam da lay tagat pour nga les gens wax ak nit ñi ci kàllaamay tubaab kàllaamay nasaraan donc il dogal a moom moom ma gën a bëggloo aussi théâtre bi parce qu'à travers lui il naa ni intellectuel mais comédien c'est un artiste donc j'ai appris à connaître ak mom lan moi comédien dëggantaan et il avait insisté à l'époque pour que pour que ma jang d'abord ba nga xam ma jangal ba pare après di nga def théâtre. parce que jangal lolu dama ci joxe message moy lo jangul mëno ko tari lo jangul mëno ko tari ba tay day ak jëf bi manam kàddu yi bi depuis ñu commencé ak yow ba légui day mengo ak jëf yi machallah lo jangul do ko tari nit bu jang ben affaire rek ci la mëna wané wane yenn comportement yo xamanteni ni bu ñu diw jang na li ñun xamni ki kat ah li mu jàng loolu lay wane. la. mais man damay joxe ay cours école nationale des arts je suis professeur à l'école des arts. man du ba tey jii man damay jàngi. ba tay ji damay jang yenn forme théâtre ba tay ji damay jang théâtre naka lañ koy dundé naka lañ koy extérioriser naka lañ koy jangé nak naka lañ koy jangalé pour man xam-xam du doy daal si wàllu théâtre quoi. wala quoi. parce que man école des arts dama ci doon ñew parce que amna ay ndaanaan yu ma wax ni lajal mako euh Ibrahima Mbaye ak école des arts. lan moo ko liyee ci loolu depuis mu ci nekk ba léegi boo tuddee école des arts sa xel di dem ci Ibrahima bay Sopé année nga njëkk a yëg si seen di répété ak ban année lañ la njëkk a dëpp caméra pour ci théâtre euh, je en à en 86 laa njëkk ñëw fekk ñuy répété si benn salle de théâtre du salle de théâtre parce que école la woon pionnier bi ma ñëwee sama réaction mooy dama jóge woon euh, euh, IASU football ñëw. Anda ak gars yi ñu dugg ci école bi ma dégg ay ñuy woy quoi ma ni waaye xoolal yambar yooyu <laughs> waaye góor yi ay góor yàlla yu tal nii naan dañuy def ay yambar lañu quoi imagine nga ndeke man maay yambar bi bo yambar bu mag bi ndeke mi ngi nelaw ci man daa yeewoogul donc xam rek ma wax loolu uh-huh. foofu laa njëkk yéegi ma ñëw bon di seetaan après benn moment ma wax metteur en scène bi fekk maa ngi koy déglu rek muy expliquer quoi benn ma toog noonu ma ko gën xam nga rek sob quoi ma ne ko mais kii li nga koy expliquer nii sànq ba tey moom pourtant buy joué mi ngi koy mi ngi koy wane nii si si yaram bi quoi mais dafa mel ni dafa des daf ko desee intérioriser quoi. mu si mu ne ma yow da mës mas def théâtre man ne ko déedéet mu ne ma c'est pas vrai mu ne ma réaction bi nga am ku def théâtre moo koy xam. man ko noonu dama gis rek nii mi ngi koy wax nii mais bu bu nekkoon lu jóge si biiram mu ne ma kaay nga essayé ma ne ko jamais mu wax wax ma ne ko noonu man du ma artiste du ma comédien bëgguma def théâtre bëgguma mu ne ma noo kaay dafa am lu ma lay wan waaye kaay taxaw fii ma jóg taxaw parce que ma tegee sama tànk ci plateau boobu uh-huh. ba tey jii bàyyiwuma théâtre tey jii lu ma am ci àdduna théâtre moom 86 86 ba tey jii moment boobu euh, ñu ngi tourné benn pièce bu tudd dagg dagg benn jaam la boo xamante ni jaam la ci biir kër gi mais doomu buur bi daf ko nopp doomu buur daf ko nopp léegi nag comme doomu buur bi daf ko nopp ñu bëgg ko may beneen buur xale bi ni moom jaam bi la bëgg buur bi ni kon nañu rey jaam bi bu ko defee doom sëy ak keneen beneen buur bu jóge ci beneen dëkk léegi nag yàlla dogal ci kattanam ak kiiwam mu sauver bour bi ci benn trahison buñ ko doon def sauver doom ji après ñu war ko ko kii je me rappelle à l'époque ndeysaan am na si si gaan bi ma karaafilu mareen na xaar lu mu doo bu mu njaam ma dem banaar bañ naa bëgg naa jaam loolu ñu takk ko heure boobu moo tax du ko fàtte dafa nekk sama boobu ba tey ndeysaan ñu takk ko muy ñëw à l'époque am na benn maire dañu génn man ak sama benn copain dugg kër gi ma naan ay waay kii yow yow kii ni ñu ko def metti na yaram waa nga dagg di nàcc nanga ma dugg ci kër gi Aliou Ndiaye ne ko lan la ma ne waaye yow yow kii ñii dañoo soxor xool ni ñu def jàmb yow xool ni ak ni xale bi mel oh kii c'est un boobu maa ànd ak doom ji muy wax loolu mais pièce boobu yow ban rôle nga ci joué maa joué un rôle bi aviation rulu jaam bi jaam jaam pire nga naan lan waaye yow ndeysaan maire yi wax loolu après mu ne ko kii la mu ñëw dama làmbatu gaañu wu nanga mu donc j'ai compris que am na fu mu toll woon ci ñoom mhm. et je remercie à l'occasion euh, Dundoy Jigal Mamor Diar Thioun bi nekk école nationale des arts moom tamit nekkoon les sept courses mhm. nekk suñu doyen di remercier aussi ñoom Assane Mbaye bëri nañ grand yi nga xamante ne à l'époque ils ont tout fait pour jàppale ma te boobu man football moo gënoon nekk sama xel mhm donc ñu indi ma nag jour boobu nag j'ai développé certaines choses ba euh, bi ma demee ba terminal nag avant bëggatuma lu dul école des arts même sama njàng pour te dire en premier bi may def première à na benn moment ma bàyyi fi cours yi daw dem extérieur parce que boobu c'était le premier voyage que j'ai fait pour le théâtre dem def fa une semaine ñibbi si fexe ba duggaat def sa ay cours donc pour wax la soo mhm. la sama cofeel commencé ñor ci walu théâtre man suis damay dem école nationale des arts ni ma dem donc à l'époque ndessane feu makadou ak ñoma mm. dossier ba Je suis ko mm-hmm. dafa professeur ni yow là là xam nga mu ban petit ñu ne ko fait le concours ni il a été pris quoi mm-hmm. d'ailleurs il a eu la meilleure note concours machin comme ça kon su ma la déggee yow année bi nga njëkk a yéeg ci seen répété année boobu nga njëkk a tourné. année boobu tourné ma parce que boobu man dama gëmoon benn affaire mooy nit ki li muy def daf koy jàng te année boobu óoluwuma sama bopp óoluwuma sama bopp il a fallu donc ma dem di liggéey ak moom. ñuy def ay pièces di jouer ji fii di jouer ji Saint-Louis di jouer école école normale pour les étudiants et tout ça ba nag bi ma demee école nationale des arts en 1994 La jóg ma dem école 96 la def kiné ok kiné moy première pièce bi nga xamante bi ma koy def à l'époque ak Assane Diagne réalisateur maa koy nuyu yàgg na ci la découvrir nak jouer avec des professionnels parce que Lamine Ndiaye mi ngi ci won ay ñoom Dieynaba Diallo ñoo xamante ni vraiment ci walu euh, euh, série ak yu demee nonu à l'époque donc nekkon nañ ñu ci xarañ ñu ñu xàmmee yàlla dogal ay Thierno Ndiaye dos ndeysaan suñu papa yalla ko yàlla xare ay jëna

Euh, RG RV ou je sais plus Mon moi le père de la bande dessinée quoi léegi nag ñoom ñu def ko ba pare nag malheureusement mujj ñu ko tourné mujj ñu ko génne mais bi ñu demee nag ba Kiné génn je faisais la deuxième année à l'école des arts école des arts boo fa nekkee tant que génn woon profit bëgguñu nga def film mais réalisateur bi ñëw na ba foofu demander. jox ñu ko ñu dem tourné après nag bon affaire bi commencé siiw am tour mu nekk rôle bu nice léegi nag ci la yeneen réalisateurs yi commencé di ñëw école di demander mais man samay professeur dañ ma waxoon moment boobu bu quoi parce que benn bi déjà rek dafay mel ni kon je prends de l'aile damay teg sama bopp fu ma parce que nit ñi commencé nañ soppee nangam et voilà après euh, je me suis dit ok euh, bàyyi ma bàyyi mu sedd ma bàyyi mu sedd ba ba 98 euh, maintenant j'étais libre de travailler pour qui je veux mm-hmm. j'étais libre de faire mes voyages j'étais libre de de monter euh, des que je voulais donc loolu nag voilà noonu la dem comme ni ñu ko waxee woon rek euh, ñu ngi fii ci Tëngéej seet si fi benn ndaanaan bu mag euh, nee naa leen kii ku ko gis ku ko dégg wala nga gis ko di nga xam ni kii kenn la ci artistes yi. Euh, parce que image bi ko nit ñi xamee benn la Ibrahima Mbaye Sopé ci tey bi Ibrahima Mbaye soppee ci dal bi Ibrahima Mbaye Sopé ci mën a encourager nit ci biir zëwam sax danga koy gis ma bëggoon a xam ban film nga def. nga sentir ni sénégal yi commencé nañ la reconnaître ba boo génnee ñu ne Ibrahima Mbaye Sopé mi ngi ne la. waaw boobu Kiné la. waaw Kiné Kiné laa njëkk def ma vraiment moo joué si benn bu tudd Séni mu nekk lu nice après boobu euh, ramakat yi waaw ramakat si ñëw ma tudd si Bécaye mu nekk pièce bu nice boo xamante ni euh, dafa dafa amoon aussi beneen niveau ak euh, Zénith Art Pape fay waaw ndeysaan moom it ma koy nuyu bu baax parce que beaucoup na ci ñi nga xamante ni waaw vraiment beaucoup na si ñi nga ni à l'époque ñoom ñoo Ibrahim Ibrahima kaay ñu kaay liggéey ak ñun ak les Gueule Tapée aussi mais bon après euh, Kine yaayu ramakat yi ensuite nag ci la affaire yu commencé di ful ma def ay Madame Brouette def pas mal de films euh, cinéma ak mais euh, ci Mayacine ak Dial ci la affaire bi travail nag stable ñu commence reconnaître euh, l'artiste sur le plan national international ci liñ commencé xam kan mooy soppe et tout et tout ça donc Mayacine Sénégal, Mais il profité aussi du numérique, Dial ñoom ñëpp Pape et toute l'équipe d'ailleurs donc ci lañ commencé à am yeneen dayoo tu vois après en bon 98 je ma aussi école des arts je me suis dit man xam nga un comédien sorti fraîchement de l'école nationale des arts et à l'époque il n'y avait pas assez de compagnie ci euh, laa damay la compagnie théâtrale femme femme F apostrophe A accent circonflexe M E femme qui traduit l'âme de la femme parce que man dama dama dama yaayee dal quand je dis dama yaayee moy dama dama dama waaw sama yaay dafa dafa am waaw lu lu lu dal luma bolé ma ak euh, le may def damay bëgg sentir cofeel am si mhm. bon ma créé pièce bi contre les violences faites aux femmes si sandaale woon sama à l'époque parce que sama donc sama yaay rek à l'époque donc ak moi aussi bon. la te ndam la euh, sa yaay nekk sa xarit ba boo tudd sax sa di euh, dañ koy ñaanal rek euh, soppe dañ koy ñaanal rek parce que lii ku ko gis wala nga dégg ni muy waxee nga xam ni lu dëggu la ci moom te loolu moom moo am solo diggante ak maire bi munuñ see bañ a wax parce que xam nañ cofee la même bu ñu xamul yaayam sax dégg nañ ko voilà dañuy dem seeti maire bi sax ñëwaat ci moom. ndax fii mu juddoo fii rek la màgge fii mu dawale fosu bant fi la dawale oto. ma jur ko nak muy sama taw bu góor papaam nag teel a génn àdduna waaye yàqalu ma dara musuma ko atté ji musuma ko jëli fenn nit musula dugg ci lén lo xamante tam nak lu jaadu la lu ma koy tere yàlla yonent bi xamnako dalay dem ni ma yaay maa ngi dem wala wax ni ma yaay ma lu wax ma diko xamal ni ko nak adina bi mom xam nga kuñu xam fo jëm te it jamono bi neexul a mucc mhm. boo baaxee ne doo mucc boo bonee doo mucc kon baye boo nga baax rek benn yoon mhm. te nekk ci baax nekk ci jub mhm. nit nag bu juddoo ci gor nàmp gor dara mun koo tax a gore Ibrahima daal xam naa ni dara du ko tax a mën a gore xaw ma de li mu jëm ci kanam mais lii nu passé dara mun koo tax a gore xam naa ni du li ma ko jur de ndax man yàlla doom laay waxal réyul réewul tey lu ko nit gën a bëgg mu bàyyi koo yow. ay rakkam laa fi nekkal bi baayam di dee mi ngi am fukki at boobu mi ngi toll ci am certificat am di génn mm-hmm. bi bursam laataa génn fekk na papaam génn àdduna mm-hmm. kon xam nga kooku mm-hmm. lu miti lay doon. rakkam yi xale yu ndaw mais tabaski sax bu ma saan jot. sama loxo sama ginnaaw bu ma ko ne xale yi de am nañu waaye yow de amagoo yow yaa may jaaxal bu ma yaay na xale am rek. bu xale yi amee pare man lu ma am doy na ma. sama rakk yi ak sama doomi mag yi. Mhm. ni ma nit ku ne la mu bëgg da ko ciy topp. Mhm. li tax tubaab yi gañe nu mooy loolu. Mhm. tubaab lu doomam bëgg def ko cay ya daf ko cay encouragé. kon bàyyi ko mu def li mu bëgg. théâtre ayul yaay bàyyi ko mu def li mu bëgg. man tam ma bàyyi ko mu def li mu bëgg. bi mu ci duggee tam nag. gisuma lenn len lenn loo xam ne ñëw nañ fii karaame ko ak moom wala ñu ne moo ko def ci lu jaadu wala moo ko def ci lu mbaadoo la wala moo ko def ci leneen loo xam ni du wàllam gisuma ko bi mu jëkkee dem colonie de vacances Gambie lañ ko fa jox lépp ay yére la ma ko jëndale ay yére la ma ko jëndale ak école indil ma ma ne ko yow loo amul ma yaay boo amee rek mel na am naa. waaw mi ngi noonu sunu yaay booy moom mu wax ay kàddu yu doy waar ku sañoon ah, dégg ko si sa yaay mu la koy seedeel parce que man mi don ko interview sax dama sama yaram daf ci daw parce que limu wax ci soppe dafa daw yaram tellement kon soppe dañ koy ñaanal gudd fan parce que limu am lu jafé la boko jafela wër jafé na ci jamono ji nga koy gis ñu dégg mère limu wax ci yow témoignage yu rafet rafet rafet rafet sa digënté ak mom lan la lan la xam nga nga juddu am 10 ans matu ko sax wala sa papa gañu mhm. sa ay taxaw bon amul kom bu tax ñuy wax mhm. day jaay wacc midi soog a taal añ bu taalee añ pare dem marché jaay ndugu ñëw togal ñu donc musul bëgg ñu fande musul bëgg ñu taxawaalu après yar ñu aussi ci ci ci ci ful ak fayda ci ngor ci lu ñu amul muñ ko ci lu am bokk ak suñu rak ak suñu njaboot donc ci moom loolu la ñu yaree donc man après moo nekkoon sama yaay nekk sama papa nekk suma xarit nekk sama sëriñ man toog naa ay at yoo xamante ni mënuma sangoo lu ma nit jox mënuma takk lu ma nit jox. Mm-hmm. parce que sama yaay mooy sama leen moom lay dem tàllal samay loxo mooy ji te lu ma am si àdduna te naruma ko bokk moom yàlla bu ma ko barki sëriñ Tuubaa lu ma nar a am wala ma teg laal dërëm ni te moom bokkuma wala askan sax mani man damay am dara te balaa loolu di ñëw duma ko bokk ak askan bi yàlla bu mu ñëw billahi wallahi taala, lu ma gën motti kër gi pare na ma ne ko kaay ñu dem dañuy tuxu ma toog un an et quelque mënuma tuxu ndax ma te kër gi pare na ma ko yaay nañ dem mu ne ma fii ma sa bàyyi du fi jóge ma ne ko kër gi néeg bi yow laa ko defal mu ne ma du jóge si kër gi donc kooku kii muñkat du mhm. baax la buy sa yaay di wax si yow sax ñoom dañuy kontaan kon nga xam ne loolu du ay caaxaan euh, nga wax sànq sa digganteeg euh, formation yi ngay def ak euh, li nga créé muy femmes yi am naa sama benn jigéen mooy nuyu sax bu tudd Fatma Mbub nekk fee arc bu géej waaye nekk fa ak ñun mooy sunu jigéen bu baax ba pare ñu ñëw fa mu yaatal ñu yàgg naa dégg turam. sa mhm. tur ci moom lu baree bare ku la bëgg la. Fatma ku la bëgg la. Fatma dafa dafay dafay jàmbaar et puis femme sax lay wax d'une manière générale ñoom ñëpp nag dafa am lu ma boole ak ñoom lu yéeme ba bi ñuy créer festival Keparu Maam. voilà ma bëggoon na tamit loolu. nga nga nga ñëw ci ñëw ci festival mais comme da nga wax ci Fatma. je parlerai des autres le moment venu. Mm-hmm. mais Fatma mm-hmm. biñ koy takk dafa tombé couvre-feu ma nekk di liggéey ba benn waxtu jot rek ma ni booy bi taalal ñu dem bi ñu egsee le temps ñu fay nekk di wax couvre-feu bi passé na dañ jékki-jékki rek mu ne ma waa Iba mais couvre-feu bi ma ne ko Fatma bu ma jàppee man police ndax dama ñëwoon sa mariage wàcc na waaw loolu rek laa mën fay yàlla nañ ma jàpp tey ba nga xam ni jaaral nga ma waaw pour wax la waaw donc mu nekk sama jigéen nekk suma xarit mm-hmm. nekk nag ndaanaan mm-hmm. ku am jom parce que naanaan mooy kuy fighting pour bañ ku la yëpp mm-hmm. naanaan mooy ku bëgg am li sa nawle yi am naanaan mooy ku juddoo ci famille bu rëy téye loolu xam ko xam sa bopp mm-hmm. te Fatma qualité yooyu yëpp boole na ko mm-hmm. donc moom euh,

et puis may profité si occasion bi di leen jaale suñu sœur Thiaba Thiaba Thiès mhm. dem naa fa démb rek jaale ji mhm. mais mu nekk aussi soxna su nice ndeysaan mhm. ku am fula ak fayda donc ma koy jaale arko yëpp di ko jaale Sénégal sax laay wax mais comme Guédiawaye la dëkkoon aussi ma koy jaale président Ibou Fall moom dañu yàgg suma xarit la di ko jaale Tafa waaw di ko jaale aussi Kamadou Kam Mamadou Camara per mbaay ñoom ñëpp waaw waa géejawaay yëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn parce que aussi faama comme ni mu tudd Fama Fall mhm. bokkoon na ci ñi réew sa théâtre mhm. kon yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko sëriñ baara teeru yàlla na ko sëriñ baara amiin waaye ku ko bëggoon na sëriñ baara moom laay profité di ko jaalee man tamit maar doomam sama xarit la bi mu takkee jabar yàggul maar maar maar nee naa ko euh, moom la ñu war a jaale moom maire bi moom ko dénkoon maar maar maire bi moom ko dénkoon j'étais presque mën naa wax la seule personne boo xamante ni maar ku ko woow tourné moom dayu làggu da koy wax ni ko diw moom moo lii la bëgg ak lii maire bi wax ko mais bu ko nee soppe moom moo daan ko demal mosu ko laaj mu koy dee musu musu ko laaj maar muy ku yaru ah macha allah ñu koy jaale di ñaanal sunu yaay jooju Thiaba Thiès Thiaba Thiès bi nag ñu bëri dañoo yaakaaru ni sax Thiès la dëkk ndeysaan ñu bëri dañoo yaakaaruñ Thiès la dëkk waaye ñu ngi koy ñaale jaale ñëpp parce que Serigne Ngagne tamit. Euh, voilà waa mbetteel yi aussi ñoom Rouba Serigne ngañ wax nga dëgg ñoom ñëpp ndeysaan dina leen wétal xam naa. mu si woon mais moo wax la beneen exclusivité boo xamante ni yow laa koy soog a wax mooy xam nga joué na ak moom benn pièce bu génnagul. loolu de kon waa CNM rek ñoom ñoo ko déggagum. musuma ko wax joué nañ y benn pièce boo xamante ni bu génnee fii dëgg bi tey problème bi kay mooy lim fi jógee hmm. mais pièce bu yéem boo xamante ni Mamadou bi tey moo ko bind ay Leuz moo ko réalisé une très belle pièce une très très belle pièce où je me souviens bi ñu mujjee tourné dama pare ma ne ko mère performance bi nga def du ma leen wax nag rôle bi lan la mhm. bu pièce bi génnee dinaa la woowaat ni la la ma la doon wax te bëgg ma la koo wax ah. waaw lii la woon mais di nga gis performance bi xam ni àdduna du dara gis nga lii xew nii lu mu médité ba booba loolu foofu la ñu lu mel ni dafa dal suñu ben soppe tamit euh, muy euh, euh, ci dëkk Touba te mu génn àdduna jamono ji Mbaye Mbaye mi ngi doon tourné suma benn collègue Aline Mbaye ba tourné si cinq épisodes après yàlla dogal ñu ngi ñu koy jaale. àdduna yàlla moo sañ yenn yi parce que yàlla buy def di tàggu kenn ñun buñ doon nga xam mhm. kon kenn waxatu ko kenn waxatu ko mbay sapar sapar le 9 septembre bi passé sama anniversaire la won ay 7 8 vidéo la ma def parce que mom nee tiofel ak yegg bi mu am ci man wa dafa yéeme man tamit yalla dogal yagul sax xam nga man ak Mouhamed Niang dafa am ci ben projet bu ñu nekkon mu gis Mouhamed Niang publier ko ñu daje ak mom Balla gay bi papa papaam gaañoo rubles mu waxati fo ay wax yo xamanteni nan naan nangam di wax ci man lu bax yàlla moom bu bëggee ñëpp ñàkk donc mbay moom tamit li doon béggal askan wi yàlla na ko yàlla bégale noonu waaw loolu la rek ku ci defal askan bi mbégte reetaan lu nit jox ko honneur jox ko bonheur yàlla bu lay fay yàlla na la fay loolee nga daan jox nit ñi. ngi si émission bi nga xamante ni mooy découverte ak seenam di leen wax bu leen fàtte dem suñu ay plateforme lu ci mel ni YouTube Facebook ah, TikTok ah, Instagram ba ci Télépac ñu ngi fa di wane ay information yu wér wóor bu leen fàtte ngeen dem abonné di suivre suñu ay émission macha allah grand dañuy dem xool benn pièce bu grand bi def daal di ñëwaat. dafa am ci ay conviction yu ma koy teg dafa am ci ay base yu wóor yu ma koy teg nit politiciens yi actuellement jàppee politique man jàppee ma ko noonu man politique dama gis ne war nañ cee mën defaru war nañ cee mën a defar askan wi te loolu mun mënuñu ko def sans jigéen ñi man yéen laa gëm yéen jigéen ñi dama bëgg ñu weesu bu góor ñi xëyee dem liggéey ngeen toog ci kër gi góor baax na jigéen baax na bu jigéen ñi dee bu góor ñi dee liggéey yéen aussi war ngeen am ay moyens yoo xamante ni ak ay jumtukaay yi ngeen liggéeyee ndax ñaari loxo mooy takk mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sër mais yow li nga fi wax lépp لن مول اندي في لن موما اندي في لن مولا اندي لن في مبي film dafa yéeme parce que bi tey moo ko aussi eh, mais dafa dëggu pièce yi parce que boo xoolee histoire am à l'époque tu as l'impression que euh, on parlait de Khalifa Sall wala on parlait de Karim Wade wala on parlait d'un homme politique alors qu'il n'en était rien parce que bi waa ji ak c'était diamétralement opposé mais même si gérer politicien boo xamante ni dafa am déontologie bëgg changer la vision de la politique gars yi pour ay ay centre d'intérêt mhm. gars yi parce que l'homme mu pas woon gars parce que na ay marché gré à gré à gré def mhm. gars pour les pour mhm. alors que ci bi histoire c'est une histoire extrêmement poignante ñu joué ay ndaanaan xoolal Mandione Laye Sarr mi ngi si mm-hmm. Lamine Ndiaye mi ngi si euh, suma yaay mi ngi si aussi euh, Mbayankay ay ay artistes yu mag. Mm-hmm. ñoo mu ngi ni ni nga ko géré macha allah que. am na lu loo xamante ne dama ko ñun dañuy ñu ngi ci milieu bi dañuy seetaan télé di gis film yi di gis théâtre yi mais dafa am ay po yoo xamante ni da ngay gis ci début film bi nit dina ci dugg mais ci biir film bi da ngay dem nga sentir ni kii po bi mu débuté nekkatu ci lan mooy dugal artiste bi ci biir jeu ba nga xamante ni lu mu rek noonu la koy terminé. loolu jàng la xam nga personnage dafa am ligne de conduite bu dee théâtre sur scène la dañ naan la kii dafa am euh, benn ligne bu mu war a topp bu muy commencé ba keroog muy àgg mm-hmm. ligne boobu mooy la trajectoire. Vous êtes sur le plan schématique loolu nga koy tuddee mm. mais vous êtes sur le plan artistique mooy ligne conduite am ak degré bi nga xamante intensité de jeu bi mooy manifesté wu ci comédien bi am loo xamante ni ñu ko la mémoire affective ci théâtre bu ko comédiens comédien bi dee joué ci rôle am loo xamante ni daf ko jël méngale ak la mise def mu am fu ñu dajee ñoom ñaar da koy aider pour mu tenir le personnage loolu nag li def concentration aussi c'est la bokk mm-hmm discipline ci la bokk ba es dans ci rôle bi tant que bàyyiwoo mhm. amul saral tu es dedans mhm. un comédien c'est pas parce que mi ngi wax da exister un comédien c'est pas parce que mi ngi joy da exister un comédien c'est pas parce que mi ngi daw da exister un comédien même bu noppé son silence doit être bavard Pour le voir gëna gën Lolo, taxaw il faut du jeu Mm-hmm. parce que silence dafa bokk ci jeu. Mm-hmm. regard dafa bokk ci jeu. Mm-hmm. feeling dafa bokk ci jeu. mën a calculer température bi ngay jouer dafa bokk ci personnage lu koy aider pour nga maintenir ko mën nañ toog di wax. cinq personnes bokk benn séquence yow nga noppi nga gën cee fees. il faut que tu sois dedans en activité te activité la comédien bi ci jeu dafa nekk en activité daw leen dem ngeen parce que lii du ngeen ko déggaat feneen ay leçons ay cours yu di jox la <laughs> allah parce que li nga wax ni dafa bari ay acteurs yoo xam ne dañuy jouer mais da gis ni po bi dañ dañuy nga sentir ni kii ñu ngi ci po bi nga gis ni nañ ci. dafa ñorul dafa des dafay ni. jën. bu jën bi ñorul ci mais bon là li ci kaw d'accord <laughs> exemple bi exemple bi leer na nga te xam donc donc loolu nag moom avantage bi euh, nga même si personnage da ngay xam personnage d'abord. Mhm. nga comme li ma mémoire affective. Mhm. man damay joué benn personnage boo xamante mi ngi tudd soppe mhm. soppe lan moo ma ak moom soppe lan moo ma ak mhm. non ñu la il a 60 ans soppe am na ñaari jabar soppe cinq mhm. nangam soppe ben bët bi baaxul soppe benn tànk bi baaxul soppe benn loxo bi baaxul soppe nangam yow nga nga ni man lan ak lan lañ a wax ni donc lolu boko trouvé. Mhm. mooy li lay ak Sopé ba tax yow boy def personnage bi ko ci yow nga koy imagination et si j'étais parce que théâtre dafa am le si magique et si j'étais et si j'étais le président de la république comment j'allais me comporter et tu commences à imaginer. Mhm. et tu commences à imaginer loolu ngay imaginer di ko tàggat non nii la war a mel nii la war a nangam xam nga loolu dafay am. Mhm. bu loolu weesoo day am personnage yoo xamante ni pour nga liggéey ko il faut man dama lay jox benn anecdote tey liggéey naa ci benn personnage boo xamante ni pièce bi mu ngi tudd les soldats inconnus ñu ngi ko créé au Maroc dem jouer ko en France festival Avignon festival yu gën a mag Grenoble à Isère partout on l'a joué en France mais bi ñu koy joué euh, le metteur en scène. 10 jours daf ma jël man ak ñaari français benn marocain benn malien mu jëndal ñu billet d'avion yóbbu ñu Maroc à 250 km de Casa benn ville bu tudd Safi am na benn village bu fa tudd Sept Gazula ci ci ci montagne la mu yóbbu ñu fa 10 jours 10 jours yoo xamante ni bu ñu xëyee fajar dañuy jël suñu équipement la ñuy sol bant kese la ñuy yor dugg ci àll bi tey ñu jaar ni suba ñu jaar ni ëllëg nii ëllëg nii nous ñu doxee une heure de temps nous manoeuvrer une heure de temps ñu ñibbi si fekk 14 heures nous ñu 16 heures 15 heures nous reprenons ba 22 heures 23 heures Nous manipuler Madame Diap ni du après le comédien le comédien day mm-hmm. et le metteur en scène xam lu mu ci bëggoon nee na ñun mënuñu rendre hommage ñu def guerre te xamuñu lu guerre de saf da ngay imagine donc pièce dem na gis nga bi koy joué. Mhm. joué nañ ko au Maroc ba pièce bi dafa jeex ñuy jooy pas gumier marocain yi di jooy parce que pas nee na naka lañ mën a demee ñoom ba dugg seen univers à ce point. xam ni dañ koo tàggat man dama dem ñu may manœuvrer ba ba ba ba ba mënatuma xam nga mënatoo quoi. Ah le gars il me demande de chanter par force. et je me rappelle ci chanson yooyu ci laa créé. bàyyi ndongo ngi bëgg a dee ci daara mu naan ma encore amu fi ndey amu fi bàyyi njagaar ak ay international maanaam tu vas le faire vas-y may bàyyi ndongo ngi bëgg dee parce que boobu sonn na mhm. te il fallait ma mu ne ma ma pare mu ne ma soppi qu'est-ce que tu chantes Maniko, Maniko, là, ma la j'aime cette chanson Maniko, qu'est-ce qu'il dit Maniko? non t'as pas besoin de savoir lu may wax mu ma chanson bi dañ koy dugal ci pièce bi <laughs> parce que des am sentiment yu mu méngoo yuy taadir man li ma soxla ko te loolu boo imaginer ay montagnes yu dugal nga war a wàcc bon temps yoo nag xam ay jantal lañ. bon voilà on était plus jeune que ça. biir yi ak wàññi. <laughs>

foo xamante ni da ngay dugg au Maroc Gambie bi ñu njëkkee dugg ci fi ñuy résidence dañ dugg rek mu ne bi téléphone bi ma ligne gars ligne bi mu internet mu coupé gars mu télévision bi débranché yóbbu leen ko fële ngeen ci hangar bi mu ne la <laughs> commencé di premier jour un mois doo jël téléphone do wax téléphone amul amul amul amul amul télévision amul internet il y a que la pièce qui nous intéresse moo tax ba pare nga jouer ko da ngay xam parce que dañ lay togal processus de création yi am. ci mhm. comédien. Mhm. pour mu am personnage bu dëgër bu taxaw boo xamanteni ni fu mu taxawee wax ñëpp xam ne lii lu mu liggéey la. non macha allah euh, parce que li ko dégg xam ne liggéey rek moo wóor euh, parce que gis nga aar bi bari nañu ci dugg mais ba tey. des nañu nekk yor ko artiste euh, parce que répétition booy respecté wuñ ko benn déggaluñ seen metteur en te dama déggoon ci Leyti Fall maa ngi koy maa ngi koy ñaanal moom tamit ci ah, waaw maa ngi koy ñaanal tamit ci li nga xamante ni moo am bërki démb euh, waa Arco taxaw fa ku ci mel ni Adama Jara ak faa euh, Fat Bintou ndeysaan rafet jikko ñu taxawal lu rafet ànd ceeg waa arko yëpp ñu sargal ko mun naa ne sax artiste yëpp la du arko kese parce que ñëpp fa teew yow mii gis naa dafa nga nekk ci kaw scène bi muy sa xarit waaw macha allah kon xale yi nañ dem nañ dem ñu tarbiyu aar parce que léegi fa laa déggul mu naan noo ko jàppee rek noonu la lay jàppee kon mi ngi noonu dem leen ngeen tarbiyu aar bu ngeen bëggee aar leen mais jamono ji nga gis ni ko nit ñi jëlee mais lan moo leen ci mën na yóbbu ba ñu am ci comme par exemple mën nañ ñi dama la bëgg laa wax tey benn affaire ñeenti façon nit lañu yu dugg ci art bi muy ban ak ban. benn mooy ñi yóbbu art da ngay bi mooy ñi aar di yóbbu. Mm-hmm. wala dégg beneen bi mooy ñi art di bàyyi ci yoon bi bi des mooy. ñiy bàyyi aar ci yoon bi. ñan la aar di yóbbu. <laughs> aar ni muy yóbbu mooy ñi nga xamante ni. Mm-hmm. def luñ ko nar yàlla moo leen boole ak moom ñu am yeneen liggéey am leneen ñëw bokk ci aar bi jox ko cëram. Mm-hmm. aar yóbbaale leen ñi yóbbu aar bi. Mm-hmm. moo ñu koy xëyal. di ko gontul. di ko bëccëgal di ko guddil jox ko seen lépp ànd ak moom dem ñi fi aar bi di bàyyi mooy ñu yàkkamti ñu sax ñoo fi bàyyi aar parce que dañuy yàkkamti dañuy dugg tey suba ñu bëgg a gën télé hmm. bëgg ci voyage bëgg ci riche hmm. dem bàyyi fi aar aar day taxaw ni la demal yow léegi li ngay def ñëpp mën nañu ko seenaan mais du aar amul mi ngi mel ni nit ko amul roo est-ce que baax. am na ñoo xamante ni aar bi moom da leen fii bàyyi parce que li ñuy jox méngoowul ak aar jikko yu ñu am méngoowul ak jikko yu ñu am day yàq suñu aar aar bi fipp bàyyi leen fi ñooñu fa gaa yi daje. duñ fa egg. dañuy taxaw di wax non diw mi moo moo pour ñoom foog nañu képp ku réussir yaa jël seen place bu ñu waroon réussir. Mm-hmm. képp ku ci am oto yaa jël oto bi ñu waroon am. képp ku ci am kër yaa jël kër bi ñu waroon am képp ku ci réussir yow yaa leen ko xañ te xamuñu ni aar moo leen fi bàyyi. am na ñoo xamante ni chaque jour nga gis leen ci écran bi mais du dara boo dajee ñoom li ngeen di yaakaar ci ñoom ci bi nga leen di gis doo ko gis parce que chaque jour ñu ngi feeñ te nit ñi ñu bari comprendre ni personnage ak personne du benn léegi ñi nga xamante ni nii ñu ngi feeñ chaque jour chaque jour chaque jour te aar fayu leen mën naa ko waxee noonu. parce que li nit ñi booy feñ rek japp nañ ni. teraanga mi ngi ñëw. leneen mi ngi ñëw mais nak mais nak attention bul fu nit ñi feñ mhm. té ar fayu leen ñoñu nekk lu ar amna mhm. am si ñoo xamanteni mhm. et là il faut nga comprendre aussi lan moy fay bi. fay bi du rek simplement am nga ci auto du rek simplement am nga ci kër. fay bi c'est autre chose c'est spirituel. c'est moral. c'est du cœur aussi. fayu aar moo uute yow mën nga def ci aar loo xamante ni daj ko man dajuma ko si ñaata nit ñoo ñëw dugg ci aar ay jeunes yàlla dogal benn pièce la def yàlla ñu réussir ko yàlla dogal aussi ñu am ci oto am ci leneen am ci leneen ak leneen lu dul benn pièce de théâtre gis koo xamante ni depuis trente ans mi ngi ci xaj na àggul fii xale bi àggul ci côté koom mais am oto taxul nga heure am xaalis sax taxul nga heure art autre chose hmm. Moi nous au début. ils n'avaient pas besoin d'argent parce que nous riches ñi ñoo def est art. Hmm. Moi, art bu njëkkoon un ko des def ñi nga en fait là maintenant dañ des ay non pourquoi pas ñu théâtre bëgguñu ko leen fay dañ bëgg exprimer bonheur mais moo art ku noble léegi nag day toll période il faut nga xam li ci parce que aussi loolu waxuma ngay ci pour lekk aar ñi dañu ñëw defar ci aar ñi ñëw pour le hmm. théâtre art d'une manière générale théâtre en particulier lu mën na laa mais lu mu yàq mënu ko art euh, benen affaire la ah benen affaire la machallah euh ma bëgg xam euh, Grand Lady ce relation ak artiste Sénégal parce que machallah man depuis daanaan bu nekk ci Sénégal du ñëpp mais amna na yo xamanteni souvent nga dégg leen ci lo xamanteni yow boo ko gisul doo ko gëm te lu mel noonu mosuñ ko dégg ci grand bi beneen bi mooy yan qualité yooyu lan moo la may loolu ba pare relation ban nga am ak artiste yi. Wa relation bi daf ma neex sax nga jum ni ma Grand Lady. parce que loolu dafa neex. <laughs> doo tudd léegi dafa neex que léegi man dama ko bëgg sama xarit sama lépp la est-ce que xam nga feebar naa euh, chaque deux semaines mu jënd ceeb ak dëriñ indi sama baax léegi fa. lay wax ay relation yoo xamante ni jot na ñuy waxante suñuy baax baax. Mm-hmm. ñun ñëpp ay gor lañu. ñun ñëpp dañu am papa am yaay. Mm-hmm. dañu am lu ñuy bañ am personnalité. mais gis nga théâtre bi ak. ñu koy jëmale kanam di waxante suñuy baax baax. Mhm. tey jombante yenn yi suñu diggante bokk na ci. Mhm. mais boo gisee nit nga weex bu demee nga ñuul kukk du luy arranger affaire bi mais di waxante lu baax parce que muy leeti muy keneen muy keneen ngeen seq lu baax di faral di ko wax pour que xale yi nag suñu ginnaaw di ci jàng dafa am solo. Mhm. sami dégg man keroog bi ma demee Arco Pikine dama waroon mën a ñëw toog mais non léegi may may chef protocole.

ci mu def ko foofu ci artiste yi nekk foofu boo ko ñëwoon ko xam ne lay ci ndaanaan la kon buñ koy sagal ñun ñëpp dañu war a taxaw tey jii nag baax na di ko wax. mooy ñun dañoo bokk luñ mënul séddoo. Mm-hmm. te est-ce que xam nga yàggul tout juste balaa soxna si di di di voyager ñoom ñëpp fii lañ may yendu chaque mois ñu dem kër kenn léegi man sama doom bu góor. doomu léyti bu jigéen mooy mooy magam moom lañ ko may njëkkee xaw ma genre yu demee noonu pour wax la dem na ba njaboot gi nekk benn ñun artistes yi tey jii euh, damay toog fii mu neex ma ma jékki-jékki rek woo jabaru Babacar mbay ne ko Babacar ne ko an soxna si ma ne ko noo toggal supp kànja maa ñëw wala toggal nangam mi ñëw barke Cheikhul Khadim tey tey tey tey dafa maa woo ni ma foo nekk ma ne ko maa ngi fii mu ne ma lan laa lay toggal añ nga ñëw ma ne ko mënuma ñëw te sama jabaru xaritu artiste ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni li ñu amante di ko dugalante ci wàllu art dafa yéeme malheureusement fi Sénégal lu baax du fi def buzz bon rek lañu bëgg mu gaaw génn ba gars ko mais loolu ñuy sexante ñun suñu biir léegi ñu ne la ci biir Arco am na fa onze turandoo ñu ne la soppe buy def festival Keppaaru Maam Pape Matar Fall day jógee Tivaouane mhm. ah Pape jóge Dakar

moom nee na dem na ba buy dem ci spectacle bu demee ba benn moment du laajte sama oto lay xool bu gaaree mu ne eh oto ñu nga lay gaaree parce que aar mooy dundal aar ñun artistes yi demlante bi ak euh, maanaam euh, jàppalante bi dafa war dafa rafet dafa rafet te lu rafet loolu nag moo des pour ñu ci ñu ci mayante ay cër loolu rek mu mën jëmale nag théâtre bi kanam gis bu ñu ko deful uh-huh. ñeneen ñi ñooy booloo bokk ndey bokk baay di ñëw ci suñu métier di ci lekk ñun lu dul lekk. man gis naa ne loolu lu manqué la parce que gars yi li ñu lay wan ak li ñuy jëf bu ñu gisantee du nekk benn mm-hmm. ñun mi ngi ci milieu bi te defuñu tamit xam nañ mais nañu ñaan yàlla mu jóge fii ñëpp bokk ndey bokk baay xam ni soppe moom mooy euh, léeti léeti moom mooy soppee keneen ak keneen mooy loolu léegi nag ñu ngi ci dernière euh, question yi nga xamante ni moom mooy tëj émission bi parce que toog ak yow man am ak yow semaine taalal la suma micro parce que njëriñ kese la parce que njëriñ kese la ñu gis la ci benn troupe muy Soleil Levant nga def ak ñoom euh, benn série euh, nekk ci commissaire jiyee ci rôle bu extraordinaire may laaj loolu lan relation boobu yow ak ñoom Sanekh. waaw ñoom dañu yàgg man ak ñoom dañu yàgg de ñoom je pense sama relation ak ñoom. boobu ñoom génne ñu sax télé yàlla xam na ko. lañuy dem seetaan soppe ci euh, wiiri wiiri ci commissariat bi. déedéet namm naa la lool lool lool. maa la raw papa. mais nag je te moom seen liggéey du ngeen am jot. waaw ah comprendre naa bu baax a baax. am xel bu xel xaw tey tuuti ndax papa man ak yow dañu waxtaan nga am wax joo ma desel ma waxtaan ci ak Jojo am fu ñu àgg ci kaw kàddu ci mbiri Cheikhouna mu ne ma Cheikhouna dem na bay mu fekk sa wax ja nga waxoon te àggale dem na bay def trafic ay xale entre dëkk ak dëkk te loolu doon na ma neex trop ma déggee ko ci salamé làmmiñ waaye benn ma xam ni jóg jot na moo tax convoqué wu ma la à la police pour nga ñëw ñu toog waxtaan parce que je veux qu'on fasse tout ci discrétion ñu fekk si sa kër ak parce que simplement Cheikhouna devient un ennemi public Je wax na dëgg Cheikh Omar moment bi may wax ak yow génn diis ndax man mii ennemi ñëw na ba fi menacé ma de mort menace de mort yow mi ben activité mo mënatuma ko def sama buntu kër gii mënatuma ci taxaw ndax nak du tiagi ne ragal waaye dama di mak te di jëfé loolu tubab nan vaut mieux prévenir que guérir xawma numay doxé rek ñu dal ci sama kaw daf ko def bayam boole kook ay samba booy ñu duma baay bi teg ko fetal xoqatal ko baay bi ko jur bi ko duma sa baay doo bàyyi baayu jàmbur lii moo fi nekk boo bëggee dégg dëgg liy jot jot na parce que Cheikhouna mi buñ ko téyewul ay mbiram dina jéggi loxo Jojo ne waré fam def nako parce que waxna na temps bu ñuy perdre ma bëgg yow aussi les lo ci xam wala lepp lo ma wara wax nga wax ma bu fi juste ñu commencer enquête bi on n'a plus de temps à perdre Les lo xalaani bo ma ci village activités ak s'il vous plaît xamuma ci lu ëpp ñetti village yi mu koy defee. benn bi mi ngi tudd Melbourg. Melbourg. beneen bi Jam Jorox lañ koy wax. ok hmm. village bi ci des nag nga baal ma dama ko fàtte. d'accord euh, papa loolu rek xam na taxul enquête ko la mais ma la bëgg a wax te mu leer ma mooy village bi Mbelbourg bii nga wax Cheikhouna mii nga xamante ni mooy ndey bi.

diko faciliter li nga xamanteni moy mooy mbon yi def ci biir village bi donc loolu moom amatul lu ñuy xajj ak seen et on sait que village yi bu fa jógee benn chemin moo am te aéroport le jëm ci lay génnee xale yi donc dina lancer benn appel képp ku dëkk ci village yooyu ñëw ci ville bi wala képp koo xam ni sa déplacement am na benn rapport minuscule ak Cheikhouna dans les prochains jours à venir pour la tegul loxo dinaa la ci wax lu leer nañ lu mel ni midi je te le promets xam nga beneen bi lan la vous pouvez vaquer à vos occupations à partir d'aujourd'hui daa jël benn argent teg ko ci sa ginnaaw foo bëgg dem demal loo bëgg a wax waxal man actuellement j'ai mes raisons am na ay pour faire mon enquête le système vélo. ñu gis nga gisee ci Wiri euh, Wiri commissaire pour doy waar man ya yaakaaru sax commissaire dëgg man bi may ñëw fii sax maa ngi naan xaaral ma xool sama pièce yi parce que grand bi commissaire la euh, relation bi ba loolu am lan la. c'est que j'aime beaucoup la police nag. j'aime beaucoup la police. Euh, et euh, maa ngi profité ci occasion bi sax euh, di di di ko may sama sama xaritu commissaire yëpp. après finalement on était devenus très proches. parce que dama doon dem ba ci seen bureau yi. di waxtaan ak ñoom di gëstu parce que personnage bi nag dama ko doon gëstu de dama dem uti ko dem ci bureau yi léeg-léeg nga ñëw ci commissariat nga seetlu commissaire bi nga nekk fa di ut ay papier di xoolaale son comportement comment il fait waaw yooyu yëpp dama <laughs> <laughs> dama dem gëstu ji ko et que bon dama gis ne la police chaque fois euh, yàlla dafay dogal léeg-léeg nga guddee tëdd si 3 heures du matin nga fekk la ñu taxaw si tali bi. Mhm. et dañ lay protéger sécurité la ñuy bëgg quoi. léegi nag des fois gars yi mën leen bañ jox à 100 Moi, cent man bokkoon ci sama mission pour que bu cette année lii tu euh, bi ñu am si ñoom. Mhm. ak yéene bi mu gën donc motax j'ai pas lésiné sur les moyens dama dem gëstu ji rôle bi. Mhm. di xol internet bi di xol sen comportement yi di xol comment ils doivent faire son nangam son nangam etc. etc. et cetera voilà. loolu moo tax euh, nekk na rôle bu ma aussi. et puis bon dama ko def ak xol ndax bi may dem di def wi euh, wi sama yaay moom jox ndigal parce que woon nañ mu benn yoon antuwul beneen bi aussi la même chose ma nekkoon si ay affaire Cheikh Ndiaye woo sama yaay ni ko nag bon sama chéri nga de soppi bëggul ñëw parce que Cheikh Cheikh talib yi la tudd hmm. man sama papa Cheikh talib yi la tudd. donc dafa may sa yaay man la nopp quoi. Euh, <laughs> voilà après mu ne ko yi soppee bëggul ñëw sama yi ma eh demal nga tourné ji ndigal teguma ci baat. macha allah donc je savais que rôle boobu ndigal lañ ko defee. kon buñ ci waree am war nañ ci lu baax. waa Soleil Levant yëpp di leen bëggee bu baax a baax di kontaan ci ñoom. dañ ma bi quoi. Eh, loolu du woon de. non loolu dama <laughs> non boobu <laughs> Bibo Bibo suma copain moo ko réalisé. booy Bibo muy booy bu cool macha allah. Bibo ndaanaan la et puis dafa mbapat. ñoom ñëpp wax dëgg yàlla. et ñu ngi koy révolutionné. ay jeunes ñoo ci nekk di ko jox beneen émission bi ah. fekk nañ sa rakk bu yaru ndeysaan euh, macha allah gis ko mais dañuy dem. xol ko laaj ko lan la digganteem ak magam waaw bu ñu ñëwaat ci plateau parce que ñu ngi ci dernière ki ba tey découverte la nee naa leen ak ibulay fii ci chaînem dara du yomb voilà donc mu nekk koo xam ne dafa am taxawaay bu rafet vraiment rôle bu joué rôle ci théâtre yow da ngay fier ne kii ñoo bokk fu ñu dëkk ñoo bokk tëggeej parce que lu muy def rek da koy def avec perfection euh, donc mu nekk euh, tamit nit ku yaru nit ku mandu nekk ku généreux aussi ku nekk ku généreux donc euh, li muy def yëpp sax vraiment mënu ma ko mënu ma ko lim fii

Euh, seetaanu ma tamit benn yoon mu doon nit ku humble nit ku baax macha allah nit koo xam ne ko disponible la courageux aussi di ko ñaanal aussi tamit yàlla mu gën koo may lu kawe njortam ci li mu nekk. parce que comme ni ma koy waxee rek dafa disponible ci côté yëpp. artiste bu ko soxlaa ci moom la des. wallaahi azim artiste bu ko soxlaa Ibrahima Mbaye soppe ci moom la des. xale bu ndaw mën na koo yendal fi mu taxaw. aussi tam ma di ko gën a ñaaxaat di ko wax ne ko. fi teg tànkam. incha allah bi ndam rek ca kaw ca kanam ci lu baax incha allah. Eh, ñu gis sa rakk bii nga xam ne mooy Ndeye Fatou macha allah wax ci yow lu rafet moom sax nee na warul bëggul woon wax dara parce que cofeel cofeel ak yëg-yëg parce que lu jógee ci xol tamit ci xol lay dem ñun ñi doon ko jox suñu micro muy wax sax xam nañ ni kii li muy wax lu ko ñor la lan mooy secret bi ba famille bi am nu ñu mel ci yow. Ndeye moom mooy sama yaay dëggantaan ak boo bëggee la mais mooy sama dafa ma bëgg ba léegi la màgg nii rek sax xëy bëgg mbëggeel gi xaw a wàññeeku. Mm-hmm. mais fu mu mës a nekk moo ko fekkee bu mu génnee mu jooy. parce que nee man maay papa. parce que mm-hmm. man maay taawu papa. tu vois te comme suñu papa dafa teela wàññeeku. Mm-hmm. moom yaay rek laa koy xoolee. suma xarit la man yàlla dafa maa booleeg samay rakk. gëmuñu ma samay rakk gëmuñu ma. bi ngeen di ñëw sànq oto bi di kaar kenn ci sama rakk yi laay yónni. fu sori na ko demal nga taxawal ma fa. Mm-hmm. loolu kóolute la. Eh. ñoom lu ñuy def cest à jàpp ñu soppe comme kuñ bokkal ndey ak bàyyi nii kese ñoom dañ ma sax mujj fanfar. Mm-hmm. dañu ma bëgg ba dafa jékki day daal. sama rakk yëpp nag. ñoom ñëpp ñoo yem. amaana yow tamit doo mel noonu ci ñoom. Mm-hmm. maanaam ni yow ni nga mel li nga leen jox lan la delloo rek kon yal na yàlla boole leen nga yàgg leen a taxaw waaw nga yàgg leen taxaw fu nekk parce que taaw mooy bàyyi.

bon waa club modèle africain ñoom ñoo ñu ko jox. macha allah samedi bii ñu génn. Ah, ah. waaw hôtel national Daniel Sorano mu nekk loo xamante ni. Mm-hmm. mbégte la mais aussi defal nañ ko artistes yëpp. Mm-hmm. parce que jàpp na ni képp koo xamante ni rek mas nga participer ci carrière Sopé. Ah. wala képp koo xamante ni lii nekk na ci yow mbégte rek. Mm-hmm.

scénographie ñoom ñëpp dañu participer ci sama carrière moo tax prix bi nag ñoom ñëpp laa ko déjee en fait kon ngeen gis prix bi dañ koy wane nii fii fii lañ koy wane ah découverte ah. découverte lañ koy ak CNM ñoo leen koy wan ngeen gis ko nga xam ni soppe moom jox ñëpp xam nga soppe lañ ko jox mais da joxaat ay joxaat ko théâtre lu mu am théâtre mom moo gënal kon théâtre la jox trophée bi ñu ciy kontaan loolu di ñaanal ñu tamit ah ñu yàgg ko taxawoo di ko joxe ñu ñëw ci dernier euh, kii yi dernière question yi. nga xamante ni nii parce que ñun bëgguñu doyal ci yow. macha allah euh, lii jàngale la pour man lii ay leçon la yoo xamante ni yaa ngi koy jox askan bi yaa ngi koy jox askan bi parce que li may dégg nii man gën naa ko dégg wala mun naa ne sax musuma ko dégg. kon dañ lay ñaanal gudd fan ak wér. bu baax a baax a baax a baax tey jii boo doon conseillé yi nga xamante ni moment bii nii ñoom ñoo nekk ci milieu bi lan lay doon.

boo ko ci mbedd mi heure boo ko bëggee jaay duñ ko jënd ndax lamb na ba pare. et aujourd'hui le théâtre est un métier qui a une déontologie ay tan ñu bëri bëgguñu ñu seen doon seen doom doon mbeur mhm. actuellement amna suñu am sac ci lool mhm. théâtre bu njëkkoon da nga koy def ñu ne njëfu jigéen laa ak yëfu nangam la ak noonu nangam ñu won aar. mais actuellement amna ñu bëri ñu ci tedd. wala ñu ci teral seen ay waajur. Mhm. kon changé na. nañ ko jox cër. di ko dundal ban ko dundé nañ ci am ak fayda xam sen bop am lu ñuy bañ am lu ñuy bëgg am lu ñuy jomb bàyyi xel nak askan bi bayi xel ni suba du anju reer mais mat na sedd bu tay tew rek nga fàtte ni ëlëk day am bu la alal jaral dara nak ndax sa der bi ëllëg yow rek ya ko mën sam te des fois rëccu day fekk jëf kuñ ci mën dimbali la ma sama yaay waxoon nañ ko ci dimbali buñ ci soxla alalu jàmbur lépp luñ ci am nañ ko bokk ak jàmbur nañ ci doon ay taalibe nangoo gëstu ndax loo nekk nag il faut nga gëstu mhm. xam moom mooy lan di jéggalante mhm. di jëlale di sëq lu baax lu rafet ànd ànd gor mhm. te yàlla rek tax

musique da nga dem produire avec beaucoup de difficulté léegi musiciens yëpp am studio seen biir kër. Mm-hmm. artistes yi légui dañ nekk sax ay producteurs far. kon ñu nañ euh grand bi déglu ko rek loolu doy na ko góorgóorlu macha allah parce que boko ko deug deug deug nga nek nit ko am jom di nga jëfé li nga xamanteni mom moy ay conseils ñu ñuy ci lool ci dalal ko ñun bëggu ñu doyal ak yow. macha allah ñu doyal ak yow macha allah mais nak euh, lu juba jeexul jugu fa. non la ko olof di waxe ñu lay ñaanal rek carrière bi nga xamanteni mom nga def macha allah jeexagul mais yalla la yalla gëna dolli jàppale macha allah parce que grand depuis nga nek ci aari ba léegi gis nit ni dafa rafet te musul ñaaw bëgg na tamit nga wax ma lo xamanteni ni dafa la gëna neex ci séquence nga mais doo ma wax ni demal ci film diw da nga koy wax ma déggu da ngay wax dialogue bi rek ma xam

loolu gën si. <laughs> loolu ci <laughs> loolu nice na trop quoi nice na trop quoi am na aussi euh, ndeysaan ci benn benn kii benn benn pièce je pense si ramakati la xaw ma le Paris ndeysaan fu may waxee ndaw si naan ko euh, yow yow yaa ma bëgg yow bu la neexee nga bàyyi ma quoi amul problème mais man maa la bëgg maa moom sama xol yow booy bàyyi bàyyi. mais bul ma bàyyi loolu tamit à l'époque dafa kay est-ce que yéen toog def comme genre gars yi affaire comédie reetaan loo nit ñi mën nga yow mën nga yooyu. non ah. ah. ah ak di kan lay doon. ñëpp sama yaay. Mm. sama soxna sumay doom. Mm. njaboot d'une manière générale bu waxee njaboot wax naa artistes yëpp. Mm. di ñaanal kilifa diine yi ak Sénégal ñëpp nag bàyyiwuñ kenn ku lim doomatal mais ñu ngi ñaanal ñëpp tawfeex ak jàmm Sénégal yàlla yàlla dolli fi jàmm parce que ñu tamit jàmm rek la ñu xam. di ñaanal aussi eh, fi ñeen bëgg a yóbbu télé bi. yàlla na yàlla mottali ba mu àgg fa àggin bi gën a rafet. donc voilà yalla daal yàlla yàlla Senegal. jàmm ci Sénégal. amiin ci découverte la won nee len ak ibulay ay ndaanaan rek lay seti parce que CNM pour ñom askan ni mom mo len ñor askan ni mo len tax juk lu baax lañu bëgg di wane lu am njëriñ lañu bëgg di wane ah di kontaan ci ñi nga xamanteni ñoo ñu doon euh, top ku ci melni ni suma copain bi nga xamanteni mom la andal moy mooy cadre bu mag bi ak suma chauffeur Amadou kontaan na ci ñom ah Lamine rawol yaangi ci biir Hermo Isilis borom Dakar. Kër Mbay Fall dëkk bëgg naa nag nga ñëwal suma grand bi ah borom costume africain yu rafet yi di leen wax beneen yoon ci beneen numéro ak beneen naanaan ci découverte ak Ibou Laye